lépp lu may joxe ci ci wàllu secret yi mhm. di nga ko ci di nga di nga ko ci fekk mais mais jigéen ñi bëgg borom kër ak góor ñi bëgg soxna waaw dama ne la woon joxoon naa la allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw nee naa la boo ko bindee mille cent quarante waaw nga boole ko suufu jumaa suufu marché suufu xorondom suufu jumaa suufu marché suufu xorondom waa léegi bu dee góor la buy wut soxna na fexe ba wut karawu jigéen raxas ko ba mu set def ko ci biir saafara si di ko sangoo waaw karaw bopp déedéet pas karaw bopp maanaam karaw jigéen rek jum mën a doon waaw na ko raxas ba mu set def ko ci biir saafara si di ko sam men du nekk ay mees déedéet du nekk karaw karaw naturel bu jigéen bu dee bu góor bu dee góor mooy wut soxna bu ko defee mhm. sunu borom bala balay saafara si di di def ay ñaari semaine ñetti semaine sunu borom dana ko may soxna bu dee jigéen tamit moo bëgg borom kër di ko def sunu borom dana ko may ba tey jii jigéen bu jigéen ju bindulu yaa waduudu junni yaa waduudu yaa waduudu yaa waduudu junni waaw di ko di ko di ko sangoo hmm? heure bu jullee bu fekkee dina julli heure bu jullee mu def ko vingt fois bu fekkee ni du julli bis bu jot mu def ko téeméer yaa waduudu yaa waduudu dina dem ba nga xamante ne ni waaw maanaam maanaam euh, góor ñi moom moom ko jigéen ki waaw góor ñi ñoo koy dañ koy songu léegi nag moom ci boppam mooy dem ba tànnal boppam ki mu bëgg mooy ñi amagul jëkkër la ñu wax ñi amagul jëkkër mais ñi am jëkkër jaruñu koy que góor ñi dañ leen waaw ñii amagul ñi amagul borom kër. Mhm. ñun léegi am nag nga bàyyi ko. léegi léegi nag yooyu mooy yi nga xamante ni rab moo koy sabab waaye ki nga xamante ni nii tamit am na ñoo xamante ne nii exemple dañuy ñëw ngoro ak góor ni ko dama laa bëgg góor gi di dépenser ci ñoom xaalis ñu xëy xëy bàyyi ko fa. neel benn. waaw dem ànd ak keneen. yooyu it dana waral nit kooku ci sëy bu mu dugg sëy boobu du yàgg. mooy tas yaakaar gi. léegi na léeg-léeg nag góor di lekk xaalis trahir ko trahir ko dem ci keneen. loolu danay waral tamit sëy boo dugg du du du doo ci am li nga bëgg waaye ba tey jii tamit bu fekkee ni loolu am na am na ci góor ñoo xam boo leen ko defee dinañ la tëj ba doo sëyati moom maanaam nit day ñëw waxaale ba wax ni jàpp nañ bis dootoo ko dégg dootoo ko gis. am na jigéen junni ma. Mhm. bi mu waree waayam ji mhm. da koo waatal ne ko dootoo sëy ci àddina waaw du am na am na kay am na yoo xam boo ko bindee ni def ko ci enveloppe waaw denc ko ci bàmmeel ba yomal xiyaam tant que ba ka nekk ci bàmmeel kenn du ko takk lan yooyu am na waaw mais xanaa anti am mën nañ ko dindi lool waaw yooyu am na am na am na am na mën nañ koo def nit parce que am nañ ko ñu ko def ah? mën nañ koo def nit mais mën nañ koo dindi mën nañ koo dindi waaw léegi hmm. nag yooyu yi koy bokk na ci yi koy dindi waaw euh, junniy daa yedda abi lahabin waaw bind ko boole koo euh, Euh, junni. Eh junni Mouhamed yaa waay. junni junni junni dëj sump. waaw. ak téeméeri xeer di ko sangoo bu soobee yàlla day dañ ba tey ji soixante-dix tabat yedda soixante-dix tabat yedda nga bind ko boole ko xasu xay di ko sangoo moom it day dindi liggéey ba tey jii juróom-ñeenti tabat yedda mhm. nga bind ko boole ko xasu xay mhm. day dindi liggéey liggéey yi ñu lay liggéey day dañ waaw liggéey yi ñu lay liggéey mais mais sëriñ bi am na ñuy wax ni euh, am nañu soxna mhm. ñu ngeeg seen borom kër mhm. sëy bi ñëpp am ci yaakaar ñu bëggante mhm. mais kenn kenn ku ne boo gisee sa morom sa day tàng waa léegi léegi léeg nag tamit euh, alaaj pam sëy ku ciy dugg na ko seet waaw bari na ku dugg ci sëy affaire am yëpp yàqu dafa am benn seet boo xam dama koo jàngale te mu nekk lu efficace mooy da ngay jël turu turu waa ji. waaw alaaji Pape Anne. waaw jël jël Fatou mhm. ñoom ñaar nga ñoom aw ñoom ñaar li si xaar naa ko ma ñaar ñoom ñaar nga adat ko. <laughs> léegi boo ko adatee. yokk ci chiffre 7. ah da ngay adat. sama tur. waaw adat tur soxna si. ba pare yokk ci set ma yokk ci 7 waaw. léegi nag nga koy wàññi. ma ne Fatou mbaa Khadija rek. waaw léegi nga koy wàññi nga koy wàññi. non daa def dama leen dama ko li mhm. mhm. léegi nag koy wàññi par par nga koy wàññi par par neuf. Mhm. léegi nag bu desee un maanaam sëy boobu ndaw si du la wàññi du la yokk. du la wàññi dara. du la yokk dara. maanaam seen sëy mën ngeen sëy bu dee dëgg mooy day nekk ngoro goo xam ne day dëgër dëgër dëgër dëgër waaye bu sëy amee waa dina ci gis boppam soxna si gis ci boppam mm-hmm. bu desee trois mm-hmm. waa bu yoroon milliard dana yalwaan yi lan maa la wax li ci yàlla mooy ñi amoon takk soxna waaw yëf yi deñ yëf yi deñ mm. jekk yoratuñ dara mais bi kooku boo ko mënul bàyyi ndax mën na ci def ñaan mën na ci def ñaan léegi adat ba nga adda doon waaw <laughs> nañ ci àll musal adat bi nga adda waaw moom ngay génne jënd ko biscuit suukar ak tàndarma ah. ñaan ci ñaan yàlla defal la ci sëy boobu lépp lu ci lore mu deñ mhm. après nga saraxe ko ah. léegi nag tey jii am na yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne góor gu koy def gaafu jigéen du la dal jigéen bu ko defit gaafu góor du la dal ndax ni góor amee gaaf noonu la jigéen amee gaaf mhm. waaw lu mel ni xati kata ab secret la boo xamante ni boo ko bindee nga sangoo ko mhm. bu soobee yàlla sunu borom dana dimbali ba yooyu doo ko doo ko kii képp nga bind euh, salaamun xawla min rabbin rahimin 313 wallaahu yaxsimuka mina naas 313 inna batsa rabbika la sadiidun 313 nga boole ko cin euh, ma nga boole ko këriñ këriñ waaw nga bàyyi ba mu guddi nga sangoo ko benn yoon maanaam soxna si donte jinne la joo xamante ne nii ku ko takk faatu boo ko takkee sunu borom dana la musal ci loolu mhm. fi ne fi ne am na ci jigéen ñoo xam ne ku leen takk ñu tenj la waaw am na ci góor ñoo xam ne ku ñu takk it maanaam nga nga nga faatu. nga faatu maam mm. yooyu moom lu wér a wér la. lu am la mais am na lu koy dindi mooy li nga wax. waaw am na lu koy dindi mooy mooy fegu yi. fegu ne am na yoo xamante ne day dindi gaaw. nit daal warul bàyyi yaramam daal. warul bàyyi waru koo bàyyi ci benn benn benn benn jamono. Mm-hmm. waru koo bàyyi ci benn benn benn jamono. Mm-hmm. mais mais salaatal faatih ndax mën moom it moom it indi nga ñu allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ak allahumma salli mm-hmm. euh, ala mawsuufin bil karami wal juudi waaw léegi ah, léegi léegi mais mais mais salaatal faatiha fan laa tàmbalee woon bi ñuy waxtaan yaa ngi tàmbalee faatiha mm-hmm. mm-hmm.